te gën a barkeel te mooy asalaamualeykum wa rahmatullah jaam yàlla ak xeewal ak muccam yàlla na yàlla boole ñu ko defal yàlla na yàlla defal nu tawfiq yàlla na yàlla defal nu taysiir bërëb bii nga xam ne fi lañ nekk di néegu yàlla ñu fiy jéem a jàngat bi yàlla yàlla na yàlla boole nu yiw nga xam ni moom lañ fi sàkku waaye tamit ak képp kuy dékk suñu kàddu waaye mu sëmbatal ko ci mboolam jullit ah fa tabaarakallaahu ñu fas yéene ñëwaat suñu bind bind bi paase ci ci suuratu nisaa ba tey ñu ngi tàmbalee ci aaye 73 fi borom bi subhaanahu wa taala di waxe baada audu billahi min alsheytaani irrajim فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل aw yaglib fa sawfa nutihi ajaran azima kon dañuy mu ñëw di sos sof suñu bind bu jëkk ndax fi ñu daanele woon yàlla ngi wax ak yonente bi sallallahu alayhi di ko feeñalal ñi nga xam ne ay naafiq lañu ndax ci wàllu xar bu la ay jeexa woon te mooy guerre yàlla nag dana toog ba yàgg mu sant yonent bi salaa salaam guerre waaye lam ca jublu mooy ñu fexe ba julli ñu am seen liberté mën a jaamu seen borom na mu ware waaye tamit yëkkati kàddug yàlla gi ba ca desit nag mooy yàlla man a segg ana ñan ñooy naafeq yi ak ñan ñoo gëm yonent bi salaa alayhi salaam loolu ñëwoon na ci suñ bind yi paase waaye ñëwoon na ci suñ bind yi paase bind bu am solo te mooy kóolute ak ak adlu moy justice lolo nak ñu waxon ci lu am solo waxon la ni la ta dal moy lépp lo xamanteni bi dafa war nit ki mu def ko waye wala lo xamanteni bi da nit ko dorok da ko wat lolo joxon la ci ay point yu bari bokon na ci ñu ne la al amanat fil lu te gi nit ki wara am digganteem mak boromam pour jaamu ko lolo dafa war nit ki mu joxe ko waye amon na ci bu ne al amanatu fi hifdhil jawarih mooy nit ki yàlla daf koo dénk ay cër cër yooyu bu ci nekk dafa am amaana pour wattu ko ci doxal ko ci li nga xam ne moom la neex borom bi subhaanahu wa taala waaye am na la ñuy wax xifsul wadaa wattu ndénkaane mooy si société bi am na ñoo seqal ñoo xam ne dañoo yëkkati seen alal jox la muy ak ndénkaane nga fexe ba sàmm ko delloo ko seen borom nan la ko joxe woon waaye am na al amaanatu fil amal koodute goo xam ne dafa am dafa ñëw ci liggéey yow mi nga xam ne fonctionnaire nga wala fonction boo mën a yor nit jox la ko bu boobaa war nga góorlu waaye taxaw sa kéemtalaay kàttan ñu joxoon la ci détails yi ci bari nga xamante ni bii kuy liggéey rek war nga góor góorgóorlu ba nga xamante ni bii loola dara du ca manqué. beneen mooy al amaanatu fil kalaam moo dugg ci cër yi nga xam ne moom lañ la waxoon beneen mooy al masuliyatu responsabilité ñu joxoon la wan la ne la comme réew mi képp koo gis mu jiite rek na xam ni ñamu jiite mooy amaana leen ci ñoom war na góorgóorlu ba baat bi nga xam moom la ci yàlla teg al lu muy ak maandu na doxante dox doxali sa diggante ak ñoom ak maandu ci maandu kon loolu moo nekkoon suñu bind bi paase ñu tëje woon ko nag ci wàllu xeex gi nga xamante ni bi moom la yàlla di sant yenn saa jullit ñi pour ñu xam ni lislaam ba muy doog a door ci néew doole la waaye nag leneen lu mu am xeet dafa jàkkaarloo ak i noom yi ni woon du fi amee te ñu góorlu ba mu am fi kon yàlla boroom subhaanahu wa taala mu ngi wax ni fal yuqaatil na xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla ñan lay wax alladina gaa ñi nga xam nu yashruuna dañuy jaay alxayaata dunya àdduna bu gàtt bi bu jege deñ bi bil akhirati jende ko akhirah gi sax ba faw li tax yalla di wax lolou ci bind bi passé da wa wane nafiq yi nga xamanteni bi ñom su yonente bi déclarer xex ñom dañuy fexé fexé fexé ba duñ dem dinañ wut ngant lu nañ wax ko ba baña dem suñu demee bu ne bu fekkee dañu fa ray julit ñi wala ñu gañé len bu dik bu ñu diké mu na mom sant na yalla ba nga xamanteni demul ndax mu ngi ni topp nañ Muhammad rey na la ñoom ñëpp su fekkee yonent bi salaa salaam ak i saxaabam dañoo gañe bu ñu ñëwee muy rëccu nag naa a waa loon moo te ay waay ma yàlla te nii aka neexoon ma ànd ak gaa yi dem ci xare ba ndax bu boobu ndax la tax muy rëccu bu ñu musaan a gañe xeex bi li ñuy indi ci alal day bari ak i jaam bu ñu dikkee dañ koy séddoo te ñu demuloon ci ger ba duñu ci am bu boobaa moom muy rëccu ndax ñoom alal àdduna rek moo leen yitteel moo tax yàlla ne nañu xeex rek ci yoonu yàlla ñan ñoo koy def nag mooy ñi nga xam ne dañuy yashtaru na dañuy watte alquran yenn saa yi mu tudd yashruuna na saa yi mu tudd yashtaruuna su ne yashruuna mooy ñi nga xam ne dañuy jaay mbir jënd ko mbir yashtaruuna mooy ñi nga xam ne dañuy jël mbir dañuy jënd baat bi benn bi jaay lay firi benn bi jënd lay firi kon ñaari baat yi ñoo bokk képp ku jënd da ngaa wattee da ngaa am loo yor joxe ko ñu jox la leneen waaye bu ne yestaruna ak ëpp nag yow la nga ko jënd jaru ko mooy yestaruna yestaruunal xayaata dunya bil akhirah mooy dañoo jël dañoo jënde seen àllaaxira seen àddina kooku la mu ko jënde jaru su dee yashruuna nag dañoo jël àddina jënde ko seen àllaaxira danoo jaay seen àddina jënde ko al àllaaxira kon ñoom lañ ko jëndee jar na ko wa man yuqaatil képp kuy xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa yuqtal ñu rey ko mooy mu shahid jullit boo xam ne dafa xeex ci yoonu yàlla ñu rey ko aw yaxlib wala mu gañe am noonam bu mu ci mën a am kon jullit bu demee ci xare du perte benn mu gañe mu rey walla ñu rey ko suñ ko reyee shahid la te shahid ku na xam na ni moom bu ruwam dooye rek ruwam yàlla jël na ko yóbbu na ko aljana fa lay fasa fasa fa safa fa safa khol senna na dana len jox ajaran ab yool aziman bu mag waaw dana len fay fay gu mag mo xam nak kañu ray la mo xam ki ray ba am ndam ñibisi ñom ñaar ñep yalla neena dina len fay fay gu mag yalla ne wa malakum mu ngay laaj ana lan mo len dal lan mo len ñeel la tuqatiluna ba du ngeen xex fi sabilillahi ci yoonu yalla loolu nag même question bi ñun dañ koy posé suñu bopp lan moo nu dal ba duñu ko duñu défendre l'islam lan moo nu dal ba noonu l'islam yi bu ñuy agressé l'islam ñun jullit ñu duñu jóg taxaw kon foofu nga koy andi tey da ngay gis koo xam ne li acte yi muy teg ci société bi day ñëw di màbb l'islam day ñëw di daane l'islam waaye pour yàq njabootu jullit ñi la waaye kenn du wax ñu nopp ci kon wa maalakum la tuqatiluna mu ne wal mustadaafiina ngeen xeex ci yoonu yàlla mën a libéré way néew di doole ña min ar-rijaali ci góor ñi wa ak ci jigéen ña wal wildaani ak ca xale ya ndax bi yonent salaa salaam dem Medina ba ñu dem ba mu am yàgg a ah, ñu commencé am doole ci Medina am na ñoo xam ne ñu ngi woon màkk bëggoon na ñoo dem Medina waaye mënuñu woon dem yéeféer yi ñoo leen fa ga ñoo leen fa tëj ñu bëggee gàddaay ñu téye leen waaye yamunu ca di leen buggal foofu ci biir màkk yàlla nag lu tax du ngeen dem xeexi libéré ñooñu loolu it danga koy wàcce fii ci sunu jamono ji rek tey boo gisee ñi nga xam ne ay lobby leen ci àddina bi bu ñuy ñëw di campagne ay nit ñu ngay jëkk ca ña néew doole ñoom lañuy ñuy xam nañ dañoo ñëw doole soo bëggee faju ñu faj la soo sa wàllu dund lekk ak naan ñu jox la ci loo xam ne day daal sa xel ba ci sa wàllu déplacement ñu man la cee jox luy dal sa xel léegi nag pour campagne la nga ñëw gis nga ci ba ci ñi bëgg tukki ñaare boo bëggee tukki sax mënoo tukki am na ci ñoo xamante ni bi lu bon la ñuy def mooy góor jigéen ak yooyu ñun la kaay bokk ci soo bokkee léegi am visa boo cay bokk boo demee ambassade ñaan visa ñu may la ko loola nag kon campagne suñu njaboot la loola nag war na tamit jullit ñu taxaw pour jàmmarloog yu mel noonu alladina ñooy gaa ñi nga xam ni mooy ñu néew doole ñam la wax ci góor ñi ak jigéen ñi nga xam ñoo nekk ca dëkk ba amuñu doole mën a xeex waaye amuñu doole pour mën a génn dëkk ñooñu de yaquuluuna ñu ngay wax mooy ñu ngay ñaan lan la ñuy ñaan ñu nga naan rabbana yow suñu boroom axrijnaa yàlla na ñu génne min haadil qaryati ci dëkk bii te mooy màkka azzaalimi way tooñ ahluhaa ñoñam dëkk bi nga xam ne ñu dëkk dëkk bi ay tooñ kese ay tooñkat képp lañu yàlla yaa ngi ñu génn ci dëkk bi waaw foo nekk sa diine xate fa jóge fa nga dem fa neen waaw te loolu dina ñëw ci kanam wajaal naa yàlla nag ñu defal millatun ko mu tukkee ci yow waliyan aji méng suñu mbir njit loo xam ni dañuy gindi wajaal lanaa yàlla nag ñu defal millatun ko mu tukkee ci yow nasiran ak ndimbal lii ñu nekk ñu ngi yaakaar koo xam ne dina ñëw génn na ci waye ko xamanteni dang ko dolal ba mu ñew mëna dox dox digënté ak yéféri makka yi nga xamné ñu ñu ngi alladheena ñoo nga xamni amanu gëm nanu alladheena gaa nga xamni amanu gëm nanu yuqaatiluna dañuy xex fi sabilillahi ci yoonu yalla léegi nag bu ne yoonu yalla du gaddu jaasi rek yoonu yalla dafa yaatu yoonu yalla lepp lo dang koy tek muy diina ji loolu ci yoonu yàlla ba moo xam sax ba ci tabax jaaraak tabaxi jàkkaak yépp fii sabilillaahi la mooy yoonu yàlla kon ñuy taxaw di défendre yoonu yàlla ñooñu ñëpp dañuy dugg ci biir walladina gaa ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi na dañuy xeex ñoom fii sabili taaxuuti ci yoonu seytaane waaw kon àddina lee fi ne groupe bii dañuy xeex ngir yàlla waaye groupe bi moom dañuy xeex ngir seytaane yalla ne fa qatilu khex le nak awliya a shaytan gay shaytan de ni dimbali shaytan ci yonam yi mu xal na ngeen xeex ak ñoom bañ bañ am doole xeex ba nak na ngeen sukkandiku ci katan gi len yalla jox ni yalla mu ngi and ak yeen inna kayda shaytan seytaane na si kanamu jullit kana kaana nekk na daayifan du lu waye pexem ya ka seytaane bu taxawee ci kanamum yàlla seytaane pexem amatul njariñ te ñun yàlla la ñu àndal kon bu ñu ragal mukk jàkkaarloog suñu ay noonu alam tara xanaa gisoo ila ladina jëm ci gaa ñi nga xam ni xiila lahum neef naf leen ku loxo mooy bu leen xeex lislaam bi muy tàmbali ca màkk yàlla joxul woon sallallahu alayhi wa ndigal pour mu xeex ndax booba laaju ko amaguñu doole te moom li mu bëgg a installé su commencé woon xeex rek amaana yàlla amul sens mu yam fa kon yàlla ni leen bu kenn xeex am ñu nekk ca dëkk ba nag naan yonente sallallahu alayhi wa sallam lu tey ñu xeex yàlla ne wa aqimu salaata digalu ma leen xeex waaye nag wa aqimu salaat digal naa leen ngeen di julli waatu zakata na ngeen di joxe azaka kon gis nga bi mu leen bàyyi teree ñu xeex lan la leen digal nañuy julli nañuy joxe azaka julli nag foo ko fekk ci alquran bu ko yàlla tuddee azaka la cay teg ñoom ñaara ànd bii dafa am relation direct ak sa borom te mooy julli gi ndax kenn du ko defal ku dul yàlla aatu zaka dafa am relation ak bakkan alal dafa am relation ak bakkan te bakkan moom toujours moom nu mu amee nu muy téye rek moom day xool moo tax mu nekk lu xaw a jafe da nga gis ku yor alal ju bari lool waaye joxe asaka du ko yomb ndax bakkan ba moo parewul léegi nag bi ñuy réclamer loolu ne ñoom dañoo bëgg a xare te yàlla joxeegul ndigal yonent bi salaa salaam amul droit di xeex te yàlla joxu ko ndigal mu ne fa lama côté ba nga xam ne farataaleef na mooy dogal nañ alayhim ci ñoom alqitaala xeex ida am te dañu fekk fariqun ab kuréel minhum ci ñoom yaxshanu yaxshuuna ñuy ragal waaw ñoom ñoo doon wax naa yàlla yonent bi nañu xeex ba yàlla wa àcce ndigal ni dem xeexe ñu daw kon ñooñu ay naafeq la ñan la ragal nag annaasa nit ñi yaxshuuna naasa ñu ngay ragal nit ña ka llahi kem ni ñu ragale yàlla dañuy tàppet ragal nit ñi mooy noonu yu ñu war a jàkkaar loolu da leen a ragal comme ni ñu ragale yàlla te loolu nag warta am nag yàlla na aw ashadda wala sax nu raw nu gën tar xasiyatan ak ragal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 خلق الإنسان من علق